ñoo ngi fii ci Medinatul Munawwara ak sunu Makka Travel ak Assane moo féete neelee ci seen ndeyjoor tabarakallahu moo ñu jële Sénégal indi nu Medinatul Munawwara war na yóbbu Makkatal Mukarrama ci indin bu am solo tabarakallah di sunu Makka Travel di agence boobu nga xamante ni ku bëgg ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te boo ñëwee boo déggul li ngay wax Assane moo lay lakkal anglais moo lay lakkal français moo lay lakkal tubaab dugal la ci hôtel yi gën a baax sunu Makka Travel a noonu ku bëgg a dinaa la dugalal numéro bi léegi alhamdulilah sant yàlla gan moom bu ne tëll fi barab bu gisul ku ko dalal day jaaxle di ñaan yàlla bu baax agence bi seen Makka Travers yal na ci yàlla dugal loxoom moom it yàlla may ko ay clients yu bari yoo xam ne ñëw rek barakallahu daa bëgg a ñëwaat macha allah man daal maa ngi wax daal koo xam ne di nga bëgg a dem Makka daal boo bëggee rek tabarkallaahu egg màkka tabarkallaahu doo yëg sax yaa ngi màkka wala nga yaakaar ne yaa ngi si biir kër tabarkallaahu li ci gën a neex mooy boo àndee imaam imaam Seydina Xasan seen màkka travel ruq bu nekk màkkatal mu karam am na loo xam ne dama ko daan na ko ñëw màkkata demuloo fa waaye làkk bi muy làkkanteeg yow bu dee anglais da koy làkk bu dee olof macha allah boo dee arab fosha da koy làkk kon ku bëgg a dem makka mu réussir cent pour cent àndal ak seen Maka Travel ak kan Assane